kër gu ay xar mm. kër gu xar nekk mm. gu ñu yari xar mm. foo ko fekk rek day bari barke barke day bari ci kër ga bu bëggee di jot ci vidéo yu am njariñ yi bàyyi ko fii ci sama diine tv dangay ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw euh, gis nañ taxawaay bi ngeen xam ne am ngeen ko mhm. ci émission bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak sëñ Malick mhm. di ci sant bu baax a baax a baax mhm. gis ngeen ne waxtaana waxtaane nañ fi ñetti tomb yoo xam ne tomb yu ama am solo la muy euh, aada waaye diine waaye it muy lu am solo loo xam ne it nit ki nan la war a reyee waaye rendi ak rey dégg ngeen lim ci wax muy loo xam ne lu am solo la kon day mën rek tabaski xéwal la goo xam ne suñu boroom dañu ko wàcceel lépp di kon bés la boo xam ne daal hmm. bés la boo xam ne nit ki saa yu ñëwee rek la ca hmm. war mooy mu mu sàmm ca boppam hmm. waaye sàmm àq ya nga xam ne war na ko ci diggam ak tabaski buñ génnee foofu dañuy dugg ci njariñ yi ndax nag euh, njariñul xar ñëpp ñu ngi koy xaar te xar lu bari njariñ la euh, sëñ bi xar yan njariñ moo nekk ci biir xar waaw jërëjëf sëñ Mbàkke xam nga xar sunu arrière tout rek xar lu bari importance la mom xar wa mom xar lu bari ndagn la lu yalla teral la di mala bo xamanteni bi, dafa am lien ak doom aadama wa xar xar dañ ko bindi pour nit muy jurgu lewet waye du jurgu yeme yeme yeme yeme ndax bu nu ci rek ne Seydina Jibril bokk na ko ci ay laafam yoo wàcc ko ci kaw suuf rek doy na doy sëkk waaye yamu ca la euh, képp ku di ab jullit saa boo juddoo boo amee doom la ngay njëkk xalaat mooy ut am xar nga xam ne bu ñuy tufli bu ñuy tudd xale bi ña rendi ñu ma kon képp ku di julli rek ak noo mën a toll sa yéene waajur mooy rendi am xar barke gi nekk ci xar nag boo xoolee ba ba ban nit ñi tàmbalee tabaski ba léegi mos ñooñu dégg ñu ne xar jeex na te boo ko doon gam-gamlee ak li nga xam ne moom lay wax kalbu ak li xaj li xaj di jur ak li xar di jur li lim ko rawee kenn xamuñu toll waaye coggalu xaj lu néew la nga gis ko. te xaj dana jur fukk ak ñaar la mu gën a néew fukk ak benn ba juróom-ñeent xar ak mën a juróom lu mu bari bari bari bari bari du weesu ñett néew na mu àgg ci ñeent. te la ci gën a siiw benn lay jur. te ñaata nit ngay gis ñuy tudd ci am xar. Mm-hmm. ñaata doomu aadama ngay gis ñu ne diw am na doom mm-hmm. jënd ci am xar rendi tabaski bu dikkee da nga naan xar du ci àdduna mhm. kon barke rek am solo yalla def na ci xar barke xar mhm. yalla def ci mom ku mën xamé flair manam ngatu doom aadama la mhm. moom xar wa xar do ne bo tambalé yar xar bo duké ci kër gi rek bo waxé da ngay dégg ñu daal di yuuxu kon xam na kii wax kan la loolu yalla def na ko ci xar ki leen yar bu bu génnee dëkk bi ba ñëwaat kàddoom bu ñu koy dégg rek di di di annoncé xam ne kon kaleen daan yar kat ñëw na kon loolu yàlla def na ko ci xar mooy xàmmee xar doon loo xamante bi tamit lu bari bayra la waaye lu bari barke ndax fi mu doon yi fukk kër gu ay xar yar gu kër gu xar nekk mm-hmm. gu ñu yari xar mm-hmm. foo ko fekk rek day bari barke mm-hmm. barke day bari ci kër ga wërsëg day dëgmal kër ga kon yar xar baax na kon yar waaw kay foofu laa doon dikk si importance bi mu am ci ay yëf yëfaan yu nekk ci biir émission bi mënut a tax ñu leeral ko day day jafe pour nga leeral ko fi mu boo xoolee jamono ji jur gi gën a seer xar bokk na ci. Hmm. ndax gis nga ñuy wax xaru laadum nit a ko kere hmm. nit moo ko créé. xaru waaw xaru laadum bi nga gis nii rek nit a ko créé. Hmm. kon composant la. waaye bu ñu ci xar ak dayo bi ko yàlla melal. ak taara bi ko yàlla jox. muy loo xamante bi sew sew yu bari mi ngi ci ci faj ajo ci ku tiit. xar xar ngay am njàqare. yëkkati ko sarax ko nit ki nga am njàqare ren di def ko ay saam sarax ko tuyaaba ji waxuma la tuyaaba ji waaye faj aajo gi mu gaaw ci faju aajo kenn amut nu ni mel boo ñëwee ci wàllu li nga xam ni moom la Sénégal yi muy gëm-gëm yi am Sénégal boo xa boo xoolee quatorze dix-huit mag ñi daan dem ci xeex ba ju bëjjënu xar tabaski la lan daan sox li daan soxee. bëjjënu xar bëjjënu xar tabaski. moom sax dinaa ci ñëw. di nga ci ñëw. Mhm. kon baax na. Mhm. nga gis kon xar mhm. euh, bu nekkee ci kër kàddoom yooyu day gën a stress. mbee bi mbee bi. day dindi stress waaw day gën stress ci ci ci doomu aadama. kon jur nekkul rek yor gi nga ko yor rend gi. comme ni ko ñu sant sekk di defee bu ñu yaakaar ne yàpp rek moo am solo ci xar mi. ñu sant si la waaw. ñu sant si la ñu sant sekk jaxate jaxate yeeg si la moom nga xam ne loolu rek la ñuy waaj. <laughs> kon baax ah, su ko defee yar gi ñu koy yar tamit hmm. tawxiid lay indi ci nit ki koy def hmm. ndax ma ngi dañuy wax ne yar ak jur dana tax yaru hmm. ndax loo yeew yaa ko moom. te loo yeew bàyyi ko xel. dëgg la te nit lu mu bàyyi xel rek bu yàggee nga bàyyi yàlla xel xel. yew gi nga koy yeew moo tax bu njëkkan mag ñi bu bëggee yar xalé dañ koy utal ak jur nako bi bii ko bu ko defé doxé bi du bareeti day day bayyi xel jur gi kon xar day gëna stress xar nak nek lu fiir ci yaramam bo xolé yar ko tu jur gi ñu ci bari duñ bëgg ngay ngeen di raay eh, manam ndax fi ni ñi ñi xam jur deug bu tollee ci njur boo dee bu fekkee ne yow mi moom xar mi boo ko dee raay jëmale ko benn sens ba mu miin sens boobu bu nit ñëwee di ko raay jëmale ko benn sens contraire rek loolee mën naa indi ayib ci ci am njuram ci misaal ngay tàmbalee raay lu jóge ci bopp bi di jëm ca geen ba nga def ko lu mat at nit jóge fee tàmbalee raay lu jóge ci geen bi jëm ci bopp ba loolee mën naa indil stress xar mi nga gis ne kon jur gi lu mat a bàyyi xel la kon loolooy xar. macha allah mu am lien ak doomu aadama. Mhm. ni nit bëggee xar noonu la xar bëggee doomu aadama. Mhm. kon xar mhm. du du rab woo xam ne dañ koy bàyyi ci àll waaye rab la bu dëkkaale ak doomu aadama ci kër gi xar boo ko bàyyee ci àll bu yàggee day tumuraanke kon nga xam ne moomut àll baa boog saa bu dem ci àll rek faaw mu ànd ak nit pour pour mën a nekk ci àll bi. kon xar bi ko yàlla sàkkee. nit a tax mu sàkk ko. mu dëppoog doomu aadama. bari tur yàlla yu lëmasu ci biir xar. tur yàlla yi ban la. fi boo xoolee béjjén baatu béjjén. mi ngi jàpp cinquante cinq. moom béjjén moom moom. dañ ci indi lu. dañ ci ñëw incha allah waaw na kon naa yem foofu kon da nga maa a. nañ nañ foofu ah. parce que dañuy <laughs> ñëw ci wàllu béjjën xam ah. naa ñi nga xam ne. ñooy euh, xel di taamu. ñu hmm. leen di ibbil appel bi incha allah. Hmm. Euh, dinañ leen ko ibbil léegi incha ngeen mën a woote it yéen it laaj euh, seen i question ñu hmm. mën leen cee tontu incha allah balaa ñu tëj jotaay bi ci kàttanu yàlla. waaye it làmmiñu xar. lu bari njariñ la. bari it lu muy jëriñ doomu aadama. ban njariñ la làmmiñu xaj làmmiñu xar. mën a am ci doomu aadama. waaw làmmiñu xar bu dee xar wi. Hmm. muumawut. Hmm. foofu tamit nan bàyyi sew sew boobu nekk ci xar. parce que xar day tëx dégg nga maa ngi dégg léegi ne xar day tëx. waaw day muuma. Hmm. day day bu jigéen. waaw bu góor. léegi yooyu yëpp daa mat a ràññetle mat a leeral. waaw góor ah. xar. kiy jënd xar te xamut nan lay def pour xam ne. xar mi daa tëx bu bëggee xam xar mi daa tëx. day bës waay yàlla yi mm-hmm. bu ko bësee rek dina def li li man mm-hmm. dana àddu wala mu feq mm-hmm. bu dee bërti bërti te nangu taw génn kàddoom xamal ne dafa tëx dafa muuma dafa luu bu dee tëx nag nga bëgg koo xam da nga koy muur bëri yi boo muuree gët yi ndax lu tëx mën nay gis geste bi ngay def ak gisam tax muy muy def muy daw waaye boo muuree bët yi nag aj ajal ko mun a tekk fi mu nekk kon bàyyi la xel ne nopp yee joxewut daa tax daa waaw daa tax léegi nag comme yaa ngi ñëw ci làmmiñ wi làmmiñ wi li ñuy wax élégance mm. li tubaab tuddee élégance arab di ko tuddee fasaaxa mm. xarum tabaski da cee am ba doyal ci sëkk mm-hmm. gis nga suñ mbàkkee mm-hmm. xar ngay gis nit di wuy téléphone xar nekk ci dànd nit ki lu toll ci trent mètres bu àddoo da ngay def ne xar mi dañ ko dëpp appareil bi mm-hmm. kon xar lu am kàddu la waaye seenu yar moo tax duñ duñ jooyandoo waaye bu doon dëkk bi liñ fi yeew ci xar ñoom ñëpp àddandoo kon nit ñi ci mbugal la nekk ñëpp a daw génn dëkk bi ah, kon li ma lay wax ci seenu yar li leen yàlla indee ci suuf moo tax ñoom ab yar nekk ci ñoom. kon xar lu jox xàq doomu aadama. ok mhm. waaye bu jooyandoo woon du mat une temps te nit ñi amuñu problème mhm. ndax seeni i jooyandoo xaju suñuy tempan mhm. xar bu dee jooy rek sax ci ñi yor gu jur dëkke jooy dañ koy gaafal dañuy xam ne xar bii dafa gaaf dañ ko war a génne ci biir jur gi loolu xar bu gaaf da koy def xar muy jooy ak xar muy ming yooyu ñi yar jur xam naa ne ñi ngi seetaan mm. ñu mayaale leen loolu xar moo gis muy ming ming nag mooy di cokkostiku ñaari tànk yi mm-hmm. dem gauche dem droite boobu dafa gaaf baaxu ci gétt mm. léegi nag xar moom bu fekkee ne muumawut ci bisu tabaski bi dangay dagg ci làmbin wi mm. am na saar wu ñu xabasa xabasa waaw moom ngay bind xam naa loolu lépp nag mi ngi ci waaw soo ko bindee toggee ko ak làmbin wi def ci xorom nga naan ci ñeex mi waaye boo lekk ci làmmiñ da ngay doon waxkat bu la neex nag lekk làmmiñ mi waaye moom saa boo àddoo moom taarkal la kon loolu sekkar la ci ki nga xamante ni dafa bëgg élégance wax ju neex waaw wax ju neex saa rek nit ñi waaw saa bu waxee nit ñi bàyyi la xel mm-hmm. loolee fasaxa boobu mm-hmm. dafay nekk ci xarum tabaski mm-hmm. xar mu mat tabaski waaye ñu ren ko ci bisub tabaski bëggee di jot ci vidéo yi am njariñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activé cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw